asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di bala ñëpp xaq te di leen baala xaq tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñoo fi ñëwaat tey indi fi aw waxtaan waxtaan wi nag jëm ci li nga xam ne moom la wax weeru koor xam naa dinañ ci ñëw nag ci ñaari point yoo xam ne yu wuute la point bu njëkk bi Euh, yàlla dogal na mosoon nañ cee def waxtaan wala boobu mu nekkoon nag ci biir benn waxtaan bi nga xam ne defoon nañ ko ci émission boobu tudd Settantal en 2020 mu doon wax ci koor ak li ci aju li nga xam ne moom la ci yàlla jàngale yàlla dogal na it euh, jamono yi ci ginnaaw muy le 31 mars defoon naa ci it ab audio partagé ko nga xam ne balaa ñuy dugg ci weer wi nga xam ne ci lañ war a tàmbali woor waaye comme li may wax rek loo xam ne tamit sax bëgg naa ko cee waxaale ndax audio yooyu nga xam ne dañ koy partagé lu ci bari xam nga audio yi day gën a jàppandi yenn saa yi lu mel ni enregistrement yi te lu bari bëri na ay sujet yoo xam ne dinañ ci def ay réaction te souvent ay audio lañ koy def xam naa sax di ci defaale tamit appel ñi nga xam ne loolu intéressé na leen su leen soobee maanaam comme ci mën a doon mën nga yónnee sa numéro ci numéro bi nga xam ne moo nekk ci vidéo yi su ko defee nga xam ne dinañ la mën a ajouter ci message yi nga xam ne moom la ñuy partagé nga xam ne saa yi ñu defee ab message wala benn réaction ci benn mbir su boobaa di ngeen ci mën a jot. li nga xam ne moom lañ doon wax nag ci message boobu nga xam ne moom lañ doon partagé te waxoon nañ ko aussi ci vidéo settantal bi nga xam ne moom lañ defoon 2020 ci wàllu koor gi. mu ngi jëmoon ci maanaam waxtu wi nga xam ne ci lañu war a tàmbali koor mooy weer wi ci kañ lañu war a tàmbali koor ndax su ngeen bàyyee xel li nga xam ne lañu daan jàngal bu njëkk lépp dañu daan wax ne weer wi suñ ko gisee lañuy woor suñ ko gisee lañuy wori ñu waxoon ci vidéo boobu waxaat ko ci audio boobu ñu defoon ne yàlla li jàngale ci alquran mooy faman shahida minkumu shahra falyasumhu ci aaya boobu mu wax ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan nasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkumu shahra falyasumhu waaye nag dafa am lu mat a xel ndax may leen yàlla njàngaleem dafa leer te njàngaleem dafa matale ma leen yàlla ni mu jàngalee ci koor kenn ku ci ne mën na dem ci alxuraan xool lu tàmbalee aaya 183 ba aaya 187 ci sóotu baqara yàlla ci téere bi yépp li aju ci wàllu koor li ñuy wax weeru koor ci diggante boobu képp ci la ne li tàmbalee ci aaya 183 mooy fi yàlla di wax ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min xablikum laallakum tattaquun ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm dogal nañu ci yéen koor gi kem ni ñu ko dogalee woon ci ñi leen jiitu mu ne mën na am kon di ngeen bàyyi xel yàlla nag soo demee ci waxtu wi nga xam ne ci lañ war a tàmbali woor mu doon loo xam ne daanaka nit ñi dafa am benn xeetu coono buñ ciy def di wax ne dañuy séentu weer di créer ay commission dëkk bii di wax na ñoom bis sàngam la ñuy tàmbali dëkk bee di wax na ñoom bis sàngam la ñuy tàmbali soo ñëwee fii ci senegal kuréel gii di wax na moom bis sàngam lay tàmbali kuréel gii di wax ne ñoom bis sàngam la ñuy tàmbali nga xam ne su fekkee ne fii ci réew mi gis nañ depuis bu yàgg lool ba léegi jamono bu ne koor moom su ñëwee dangay gis ne nit ñi ñoom duñ ko defandoo ndax dañuy wax ne ñii gis nañ ñii ne ñoom gisaguñ ñii ne gis nañ dëkk sàngam ñoom ñu ne nàngam ñii ne ñoom gisaguñ te ñoom fekk gisuñ duñ ko def mu am nag lu mat a bàyyi xel mooy nit ñi euh, dafa am loo xam ne jamono bu ne dinañ koy faral di fàttali xam nga dangeen di faral di dégg ñuy wax bokkaale da ngeen di gis fii si réew mi lu ci bari nit ñi suñ waxee bokkaale ñu ngi xelaat ki nga xam ne day takki gàllaaj wala ñu ngi xelaat ki nga xam ne day tudd ne moom ab sëriñam wala nàngam mooy nàngam jox ko loo xam ne cërub yàlla la ñu jàpp ne xeet yooyu rek mooy bokkaale te wax nañ ko maintes fois loo xam ne ñu ci bari war nañ koo xam léegi ndax topp ci diine wax bu dul waxu yàlla loolu dañoo war a xam ne loolu bokkaale la ndax da ngay topp loo xam ne yàlla wàccewu ci benn preuve parce que ñi nga xam ne dañuy ñëw di wax ne waaw euh, alxuraan lii la wax waaye yonent bi moo waxoon ne woor leen su ngeen ko gisee woori leen su ngeen ko gisee ma leen waaw yonent bi moo waxoon te yonent bi moom doonoon ab rasuul muy messager te suñ waxee message message moo tax te message bi moom leer na nañ ne téere bi la te loolu ku dem ci alxuraan ak ku dem ci vidéo yi wax dëgg yàlla indi nañ ay référence yu baree bari ku dem ci alquran di nga ko fekk ci barab yu baree bari yàlla li nga xam ne moom la wax ci yonent bi mu jëm ci moom te mu war ñu ko jottali ñun way gëm yi te dangeen gis ne loolu ñuy wax naa ne yonent bi moo ko wax nga xam ne ay wax la yu nekkut ci téere bi te yàlla wax yonent bi ci alquran ku dem ci suuratu Fatir muy suurat 35 dem aaya 31 yàlla moo wax yonent bi ne ko walladi awxaynaa ilayka min alkitaabi huwa alxaq musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi ibaadihi la xabirun basir yàlla moo wax yonent bi ne ko li ñu wax yu mu jëm ci yow te jugee ci téere bi mooy dëgg xam nga loolu dafa doy sëkk li ñu wax yu mu jëm ci yow te jugee ci téere bi loolu précision la te jugee ci téere bi mooy dëgg gi nga xam ne day ñëw di dëggal li li ko jiitu te yàlla kat moom ci ay liggéeykatam moom ku deñ kumpa la te it kuy gis la yàlla moomu ci boppam moo waxaat ci su ngeen demee ci sootu yunus mi surat diis ngeen dem ci aaya 32 yàlla moomu ci boppam moo waxaat ne fa dalikum allahu rabbukum alxaq fa maza bada alxaq illa dalal fa anna tusrafuun di wax ne yàlla moomu moom mooy suñu borom te moom mooy dëgg gi mu ñuy laaj ne ana moo nekk ci ginnaaw dëgg lu dul ak réer yàlla su waxee ne li mu wax yu mu jëm ci yonent bi te nekk ci téere bi te jugee ci téere bi mooy dëgg waa kon léegi li nekk ci ginnaaw dëgg lu mu doon sëgam yàlla moo ñuy laaj famasa baadal xaq illa dalal lan moo nekk ci ginnaaw dëgg lu dul ak réer waaye li gën a doy waar mooy nit ñi wax yi nga xam ne jamono bu ne dañ koy wax di ko fàttali ndax ñun fàttali képp lañuy def ndax waxuñ suñ waxuñ suñu waxu bopp waxuñ suñuy waxu baay waxuñ suñuy waxu maam waxu yàlla képp lañuy wax te li ñuy wax dañuy joxe référence yi pour nit ñi ñoom seen bopp ñu dem vérifier ko seen bopp ndax xamuñ ne suñuy déglu beneen wax ci diine bu dul waxu yàlla loolu bokkaale yàlla la ci loo xam ne wàcceewu ci benn preuve te loolu yàlla ci boppam da ko xaraamal ndax day wax na bokkaale ku dem ci vidéo yi ñu doon njëkk a def 2017 doon nañ ci fàttali loolu nit dina bokkaale yàlla ci jëmmam dina bokkaale yàlla ci jëfam dina bokkaale yàlla ci yoonam dina bokkaale yàlla ci waxam te bokkaale yàlla ci waxam sax mooy tax ñuy bokkaale yàlla ci yoonam ndax yàlla day wax lu leer kem ni nga xam ne noonu la ko defee woon ci aadama loolu ku dem ci vidéo vingt cinq wax dëgg yàlla foofu am na loo xam ne indi nañ ko fa mu doon loo xam ne nit ki su dee boroom xel su ko seetaanee rek dina am loo xam ne dina ko bàyyi xel ndax dañoo wax ci vidéo boobu ne scénario initialu dunduk nit ki mu ngi ci histoire aadama ak soxnaam sax ku dem ci vidéo vingt cinq da ko ca fekk da ngay aadama yàlla suñu boroom dafa wax ak moom ginnaaw bi yàlla waxeek moom ba noppi seytaane ñëw jël ay waxam sof ko ci waxu yàlla aadama wan ginnaaw la ko boromam waxoon ba noppi nag toppi waxu seytaane ba loolu moo ko jural lam ko jural bi loolu weesoo suñ borom wax ne ñun doomu aadama yi suñ borom wax ne yaa bani aadama laa yaftinannakum sheytaanu kama axraja abawaykum min al jannati yàlla wax ne ee yéen doomu aadama yi bu leen seytaane fiir kem nu mu génnee woon seen baay ya mooy seen ñaari baay ya mooy seen ñaari waajur yi ci àjjana te na mu génnee woon aadama ak soxnaam sax ca àjjana nan la woon mooy yàlla wax ñoom li muy wax ñoom ba noppi seytaane ñëw indi ay waxam am lum leen ca dikk ñu wan ginnaaw la leen yàlla wax topp la nga xam ne moom la seytaane wax ba tey it noonu la fii ak yàlla suñu borom yàlla li nga xam ne moom la wax ci téereem mu doon lu leer nga xam ne téere boobu yàlla moo wax yonent bi ne ko li mu wax yu mu jëm ci moom te tukkee ci téere boobu mooy dëgg yàlla ci boppam li mu wax yonent bi mooy mooy lim daan tari mu jëm ci nit ñi mooy li bàyyikoo ci téere boobu mooy lan lim ko wax ne ko watlu ma uxiya ilayka min kitaabi rabbika la mubaddila li kalimatihi walan tajida min duunihi multahada taril li ñu wax yu mu jëm ci yow te jugee ci sa téeréeb boroom kon yonent bi lim doon tari mu jëm ci nit ñi ci téere bañ ko wax ne ko la ca ne mooy dëgg téere boobu lañ ko waxoon muy tari loo xam ne ci la bàyyi ko mu jëm ci nit ñi waaye tari wutoon leneen mu jëm ci nit ñi te lii wax dëgg yàlla ku dem ci vidéo yi di nga ko ci fekk ay yoon yu baree bari waaye nit ñi dañ dul bàyyi xel ndax topp loo xam ne yàlla wàcceewu ci benn preuve muy seen xadis yooyu ñoom ñuy wax parce que yàlla loolu wax nañ ko benn fois ku dem ci alquran ku dem ci benn aaya bi rek doy na sëkk ku dem ci sootu jaasiya muy surat 45 aaya 6 doy na sëkk li yàlla wax ne tilka ayatullahi natluha alayka bil xaqi fa bi ay xadisin baadallahi wa ayatihi yuminuun lii de ay aaya yàlla la yoo xam ne dañu koy tari ci yow ci dëgg ana ban xadis ngeen gëm ginnaaw yàlla ak ay kéemaanam ana ban xadis ngeen gëm te yàlla tamit moo jàngale ba tey ne allahu nazala ahsana al xadisi ku dem ci surat 39 di suratu zumar Aya 23 so demé fofu di nga fekk yalla mo ne mom mo wàccee gën ja rafeti hadith batay yalla ci bopom mom moy lajjar ci suratul nisaa i ne wa man asdaqu min allahi ana ku gëna a yalla ci hadith mais da ngay gis ne nit ñi yalla day wax limi wax ci téré mu leer nañ ñu wan ko ginaaw dem top wax yo xamné ne ña nga xam ne ñoo ko ña nga ne lañ ko netali ñom ñu bind ko nee nañ ñooñu ñaar téeméeri at ginnaaw yonent bi lañ judd ba mën a bindu téere ñaar téeméeri at ginnaaw yonent bi la ñuy judd ba mën bindu téere ñu ñooñu bind yooyu ñu bind ñoom dañ koo war a topp doyut sax su yàlla ne nangam ci téere bi mu leer nañ téere yooyu nga xam ne ñañ wax ne ñoom ñoo ko bind ñaar téeméeri at ginnaaw yonent bi lañ juddu lañ bind ci téere yooyu dañuy ñëw indi ko ne waaw téere bi yàlla lii la wax waaye téere bi diw lii la wax su ko defee li yàlla wax ñu jël ko teg ko ci wet gi topp la nga xam ne téere yooyu moom la wax ba noppi ne wax yooyu yonent bi moo ko wax te waxoon naa fi en 2018 ci vidéo 21 li yàlla wax ci alquran na wa in tuti akthara man fil ardi yudilluuka an sabilillahi in yattabihuuna illa zanna wa in hum illa yaxrusuun yàlla lu mu wax ne soo toppee lu ëpp ci ñu nekk ci suuf dañu lay réeral ci yoonu yàlla ndax deful lu dul defuñ lu dul topp ay njort ak di sos ay kàcc ndax dëgg gi moom lu leer la yàlla nee na wax na yonent bi ne ko mooy lim wax yu mu jëm ci moom te jugee ci téere bi loolay dëgg kon leneen lu mu mën a doon benn njort la wala kàcc la ñaar yooyu rek moo fi am ndax waxoon naa ci vidéo boobu boobu maa ngi yoroon téere bi ma ne ñi nga xam ne dañuy ñëw di wax ne wax yooyu yonent bi moo ko wax ku ci ñemewut yàlla soo ko joxee téereb yàlla wala nga ne ko waatal ci yàlla ne wax jii ngay wax te nekkul ci téere bi yonent bee ko wax su ñemewul yàlla sañu koo waat su ñemewul yàlla sañu koo waat léegi nag ñooñu nag ñoo ñëw toog ànd ak seenu rëy ñu leen di taril ay aaya yàlla ñu di ko dégg di ko xam ba noppi ji di nuur ci seenu rëy ndax yàlla loolu wax foofu soo demee ci soo demee ci surat 45 muy surat Jaasiya aaya 6 ginnaaw gi lu mu wax mooy waylun li kulli affaakin athim mu ne yasmahu ayatillahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha nga xam ne ñoom dañuy dégg ay aaya yàlla yoo xam ne dañu koy tari ci ñoom ba noppi ñu nuur ci seenu rëy ba mel ni dégguñ ko mooy li nga xam ne moo fi nekk te donte sax léegi ñoo ngi seetlu ne maanaam mu ngi tane ndax am na ci ñoo xam ne ñu ngi génn léegi di ñemee wax dëgg gi ñu ngi génn di ñemee wax dëgg gi te dëgg gi li ci am solo loo xam ne yàgg nañ koo wax dëgg ki koy wax ak ñi koy dégg ñoo ci bokk yem kenn moomu ko dëgg yàllaa ko moom nit ki su jugee jëm ci dëgg toppul maanaam kiy wax dëgg gi waaye boroom dëgg ga lay topp muy yàlla lay topp nit su déggee dëgg wala mu dégg wax ñu ne ko lii mooy dëgg mu dem vérifier ko fañ ko wax ci téereb yàlla mu gisal boppam ne lii mooy dëgg su toppee wax ja maanaam su toppee loola Topul kay wax kami top moy borom wax ja mi yalla ci bopam ndax ñi nga xamne ñom ñoo nuur ci seenu reuy baña wané né ne wala baña a nangu ne lañ doon dund demb ak barki demb ta fekkon ci seeni bay ak seeni mam ñu jangalon len ko lolu kat da worok li yàlla jàngale rëy nañoo wax lolu rëy nañoo feñal lolu te suñ ko defee la muy jur mooy gën a garaaw ndax dañuy yóbbuwaale ay nit ci loola te nit ñooñu ñuy yóbbuwaale yàlla li mu jàngale ëllëg mooy ñoom seen réerug bopp lañuy ñuy jëf ñoom muy la ñu nekk te xam ne maam bokkut ak dëgg gi la cay juddoo cib yenn dañ koy gàddu ba noppi gàddu maam ba noppi gàddu ci yenu ñi nga xam ne dañ leen réeral ci lu dul xam-xam li yàlla wax ne li yaxmilu awzaarahum kaamilatan wa min awzaari alladina yudilluunahum bi gayri hilmin mu nekk loo xam ne dafa mata bàyyi xel diine li ñuy wax du compétition diine du concurrence diine nit ñi dañ ko moomut seen yoon new ci di diine yàllaa ko moom ndax nit ñi su ngeen leen jëmalee ci bokkaale waxu yàlla ak waxu keneen ku dut yàlla kum mën a doom lu mën a xew dangeen ngeen màbb seeni jëf di leen yóbbuwaale ci ñoom it ñuy màbbal seeni jëf te loolu yàlla yonent bi la ko njëkk a wax ndax nit ñi dañoo jàpp ne yonent bi comme li ñu daan jàngal mën na wax lu worook li ko yàlla wax te ku dem ci alxuraan loolu mu ngi ci vidéo yi fees ci dell indi nañu aaya yi yàlla da doon waxloo yonent bi ba noppi di ko dànkaafu ci su ko waxalee lu wuuteeg lam koy wax kon nit ñi suñ gëmee ne yonent bi daan na jàngale lu waroog li yàlla wax loolu sosol yonent bi la te wax naa ba sonn ci vidéo yi duma wax sa ba sonn waaye wax nañu ay yoon yu baree baree bari ndax loolu coono amu ci wax nañ ay yoon yu baree baree bari ci vidéo yi ne yàlla ci boppam kenn du dem ci alxuraan fekk muy wax na ku sosal sama ndaw moom ku ko sosal lay wax ndax li ko waral mooy ndaw li moom jottalikat képp la ni ñu ko daan misaalee na lantinoor la lantinoor bi nag soo waxee ne génne na lu wuuteeg lañ ca sotti loolu yow sosaloo lantinoor ba ca boppam waaye kay sotti ci lantinoor ba moom ngay sosal te mbir mi nii la demee ñun li ñuy wax kenn niñ koy waxee jamono bu ne amuñ ci intérêt wuñ ci lenn lu dul ngërëmal yàlla te dëgguk yàlla la wax ju leer la loo xam ne lu ñu wax dañuy indi référence jox leen ne leen dem leen ngeen vérifier seen bopp kon lii jàpp naa lu mat a bàyyi xel la ndax bokkaale yàlla lim ci wax yonent bi dafa leer dana ko wala xad uxiya ilayka wa ila alladina la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wa takunanna min alxaasirin yàlla dafa wax yonent bi ne ko wax yu nañ mu jëm ci yow ak ci ñi nga xam ne ñoo la jiitu ne suñu la nga xam ne suñ ma bokkaalee moom yàlla suñ ko bokkaalee moom dana màbbal ay jëfam moom yonent bi su bokkaalee yàlla yàlla dana màbbal ay jëfam ci bu wóor te dana bokk ci ñi nga xam ne dañuy yàqule yàlla yonent bi la ko wax de kon mu doon loo xam ne lu leer nàññi la lu mat a xam te ku dem ci alxuraan yàlla xam la ne na bokkaale ñi koy def dañuy màbbal seeni jëf te koor gi misaal la ci su ngeen demee ci sóotu tawba mi aaya 17 loolu ba tey ñëw na ci vidéo yi ay yoon li yàlla wax na maa kaana lil mushrikina an yaamuru masajida allahi shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat amaluhum wa fi naari hum xaaliduun yàlla wax na warut ci bokkaalekat yi ñiy dundal su yàlla yi ndax ñoom dañoo seede ci seen bopp ak weddi yàlla mu ne ulaika habitat amaluhum wa fi naari hum xaalidun mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne màbb nañ seeni jëf te ñoom kat safara la ñuy sax ndax suñ borom bi wax bi mu wax dafa am solo ci biir wax ci biir aaya bi shahidina ala anfusihim bil kufr maa ñoom dañoo seede ci seen bopp ci ak weddi te seede sa bopp ci weddi loo xam ne ak weddi mooy lan yow yàlla dalay wax lu leer naññ cib téeréem wax la lim la toppaloo ne la topp lu dul lool di ko def wéeruwaay ci lu mu wax ne ittabihu maa unzila ilaykum min rabbikum wala tattabihu min dunihi awliyaa xalilan ma tadakkaruun topp leen li ñu wàccee ci yéen mu tukkee ci seen borom te bu leen topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay mu ne néew na li ngeen fàttaliku ci ginnaaw bi nga xamee ne moom la wax ne alif lam mim sad kitaabun unzila ilayka falaa yakun fi sadrika xarajun minhu li tunzira bihi wa zikra lil muminin nga xam ne yàlla la mu wàccee ci yonent bi ab téere la noonu la ko waxee kitaabun unzila ilayka téere boobu nag moom la ñu yonent bi jottali ñun nag la ñu jottali mii way gëmi yàlla nañu ittabihu ma unzila ilaykum min rabbikum ndax la mu wàccee ci mu jëm ci yonent bi mooy téere bi téere boobu lañu ñu bi jottali kon téere boobu moom la wàccee mu jëm ci ñun mu ne ittabihu mu ne kon topp leen li ñu wàccee ci yéen mu tukkee ci seen borom te bu leen topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay kon ku topp lu dul téereb yàlla di ko def wéeruwaay ci diine doxoo ci ndigalul yàlla yàlla su la waxee lii nga wan ko ginnaaw dem topp beneen wax mooy kon la yàlla wax yow da nga koo gëmut la wax ci yeneen téere yi loolu nga gëm te lii mu doon lu leer te ku koy defit defoo ko kenn ndax loolu misaal nañ ko ay yoon mën naa ko misaal rek ci koor ci misaal liñ wax mabbu jëf mu doon bu leer mabbu jëf bu leer yàlla dalee na woorloo li may wax nag yàlla ñi gëm lay woorloo xëy na nag li tax ñuy wax mooy ñi nga xam ne ñu ci bari xamuñu daanaka dañuy toppe te xamuñu ñu bëgg ñoom it ñu jël seeni responsabilité personnelle ndax diine lu personnel la jël seen responsabilité individuelle dem vérifier seen bopp ndax li ñuy wax dañuy joxe référence yi alxuraan tradition yu bari na am na ci français ak langue yu baree bari yoo xam ne maam mu ngi ci àdduna bi nga xam ne mën nañoo dem vérifier seen bopp wax yi nga xam ne moom lañuy wax ndax en 2018 defoon nañ ci benn vidéo di wax ci waxtu ndogu yàlla li mu wax mooy su summa atimmu ma ilal layli topp ngeen matal koor gi jëm guddi gi ngeen seetlu na yeen da ngay waktu wo dèjà senu koor waxtu wi nga xamne ci ngeen ni japp koor dafay tel ndax ci guddigi la ta yalla lim wax moy wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al xaytil aswad min al fajri nga xam ne dafa wax ne mën ngeen lek nga dafa wax man nu tuddo na ngeen lek ta naan ba ba mi leer ci yeen wëñ gu weex geeg wëñ gu ñuul gi ci fajar bi mu doon lu leer mu doon ñepp mëna xam yéen ñu leen di arrêté loo lekk ci guddi gi nga xam ne daanaka waxtu wi ngeen di arrêté lekk ak waxtu wi nga xam ne ci ngeen war a arrêté lekk daanaka mat na une de temps mat na une heure de temps waxtu wi ngeen di julli julli googu ngeen di tujjee xam julli gi ngeen di jullee julli gi nga xam ne moom ngeen tuddee fajar ci guddi gi ngeen koy julli ba tey te fajar waxtu la waxtu la boo xam ne moment de transition la. boo xam ne day tàqale guddi gi ak bëccëg gi te yéen ci guddi gi ngeen koy def ci guddi gi ngeen arrêté lekk koor gi it waxtu wa ngeen ndogu mooy su jant bi sowee te yàlla guddi la wax te xam nañ ne jant bu soo su jant bi soowee lay taab bi marax la tudd mooy lu ñuy wax timis te olof yi xam nañ loolu làkk boo dem xam nañ ne timis ak guddi du benn bu njëkk ba sax suñ daan yónni xale yi li ngeen daan wax su fekkee dafa timis dañ ñaan la xam dañ daan wax bàyyi leen ba timis gi maase ngeen doog a dem kon loolu olof sax xam na ko kon léegi yéen su fekkee da ngeen wax ne da ngeen woor su ngeen wooroo ba jant bi soo ngeen ndogu kon lu mën a xew yàq ngeen seenub jëf màbb ngeen seenub jëf te loolu li ko jur mooy déglu beneen wax bu dul waxu yàlla li nga xam ne nag dëgg-dëgg ci lañ bëggoon wax mu ngi jëm ci li aju ci weer bi loolu mu ngi jëm ci ndax waxon nañ ko dem ci vidéo boobu vidéo sétantal bobu bari na lo xam ñew na ca ci walu koor li ci aju comme li ñuy wax naan manam nit ki su mënul wor day joxe muddu yoy yëpp ñew na fofu ak ak yi nga xam dañ koy wax ci koor yëpp ku dem ci vidéo bobu inshallah dang ko ca fekk vidéo sétantal la bo xam manam ñaari xaj la am dafa am dafa am partie 1 ak suite bi nga ma ku ci dem dina ko mëna gis inshallah waye bi ci liñ bëggona ñew ci point bu ñëkk bi mooy weer bi li yàlla wax ne fa man shahida minkumu shahra falyasumhu ci aaya boobu di aaya 185 di shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan fa man shahida minkum ash shahra falyasumhu xam nga yàlla dogal na même biñ ci defé audio ci le 31 mars bi euh, maanaam bari na ño xamne delu su wat nañ ñew di ci wax ak man di ci waxtaan ak man di wax ne xam nga yalla manam seede la wax te gis seede la ma ne da ngeen ni delu ngeen xolaat aaya bi may ngi xeyna suñuy wax ci olof yalla su waxe ne ku seede ci yeen weer bi nako wor léegi ngeen jàpp ne yàlla weer ba ca kaw lay wax comme lu ñuy wax la lune mais yàlla waxut loolu li wax mooy xam nga su yàlla su waxee ku seede ci yéen yàlla dogal na sax démb rek maa ngi gis ñoo ma yónnee benn vidéo euh, ndekete sax ci premier euh, avril bi weesu am na ci télé yi nekk fii ci Sénégal ñu doon def benn genre débat ci loolu kenn ci ñoom sax momit mo ngi waxat li mu doon lu am solo te it nak wax deug yalla ñu sant ci yalla ndax li ñu santee segam télé yi dem nañ ba manam di waxtaan ci sujet yoyu ba nopi it di wax li nga xamne mom la borom bi waxal bopam mu doon lu leer ndax yalla ci aya bobu dafa wax ne faman shahida minkum shahra falyasumhu ci bir aya bi moy aya 185 mune ku seede ci yéen weer wi na ko woor mooy ku fekkee ci yéen weer wi na ko woor lool lay firi léegi ñu ne maanaam gis seede la may leen déet da ngeen a bàyyiwul xel aaya boobu gis amu fa wàll may leen doyen dem mukk ci alxuraan di fekk yàlla di wax séentu leen weer wi wala ku gis ci yéen weer wi may leen loolu amul ci alxuraan may leen su ngeen demee ci alquran yàlla koor moo ngi ko wax ci diggante aaya 183 ba aaya 187 mu nekk mu nekk diggante bu gàtt li aju ci koor yépp yàlla ci diggante boobu la ko wax yàlla su waxee ne fa man shahida minkumu shahra ku fekkee ci yenn weer wi may leen olof ku fekkee ci yenn weer bi may leen olof moom weer ba ca kaw mi astre bi weer la koy wax weer wi mii bis bi mii weer bi mii bis bi mii maa mii bis yi weer la koy wax mais su ngeen demoon par exemple ci arab ni muy waxee weer kaw moo xam li ñuy wax alxilaal li ñuy wax xamar ak li muy waxee weer weer bi ci boppam mii bis yi bokkul mooy ash-shahr su fekkoon tamit ci tubaab la loolu maa lee ci arab la su fekkoon tamit ci tubaab la tubaab bi weer ba ca kaw mii astre bi day wax la lune bis yi muy wax le mois may leen loolu mooy différence bi eh, da ngeen dem ngeen xool baat bi yàlla a shahra la wax mais le mois loolu la yàlla wax yàlla nag su waxee faman shahida minkumu shahra falyasumhu ku seede ci yéen weer bi na ko woor nga ne weer wi ak weer bi ku seede ci yéen weer bi na ko woor mooy ku fekkee ci yéen weer bi na ko woor may leen léegi nag jafe-jafe bi foofu la nekk ndax su fekkee dafa wax ku fekkee ci yéen weer bi na ko woor kon ay gis ak seen lépp day dàqu lan mooy sax mooy na weer bi tàmbali rekk na weer bi tàmbali rekk ci misaal weer bi su fekkee ne comme ci maam ki nit audio boobu nga xam ne moom laa ci defoon ci le 31 mars bi pour di wane ne weer bi waroon a tàmbali maanaam ci premier avril bi weer bi mu ngi waroon a tàmbali wala boog mu ngi doon tàmbali 6 heures 23 du matin weer bi mu ngi doon tàmbali 6 heures 23 du matin ma leen nag weer bi. muy weer wi weer bi mu ngi doon tàmbali 6 heures 23 du matin te li waral muy tàmbali 6 heures 23 du matin mooy weer wi dafa juddu ci waxtu woowa mooy weer wi dafa teru ci waxtu woowa gis nañ ko gisuñ ko moom teru na te weer wi su teroo muy weer bi su juddoo weer bi moom commencé na mais na loolu dafa mat a bàyyi xel muy weer wi su teroo muy weer wi kon su juddoo weer bi moom lu mën a xew commencé na gis nañu weer wi gisuñu weer wi weer bi commencé na ndax dafa am lu mat a bàyyi xel lu mat a xamit moo ñu xam ne xam nga su fekkee da ngay dem ci àdduna bi ñu lay wax lu ñuy wax ay fuseau horaire par exemple ñu ne la maanaam Sénégal ñoom ñu ngi nekk ci GMT mooy Greenwich Meridian Time ñu ne la léegi France ñoom ñoo ngi nekk ci waxtu wi GMT plus 2 nga dem ci lu mel ni euh, comme lu mel ni comme lu mel ni États-Unis ñu nekk lu mel ni ci yenn bâtiment ci yenn gox yi ay GMT moins 4 nga gis na léegi jant bi ak fenkam day aju ci nit ki zone bi nga xam ne moom la dëkkee waaye weer wi moom daa amul loolu. weer wi moom su teroo teru na benn teru la am maanaam ci àdduna bi yëpp mais weer bi su juddoo juddu na ci àdduna bi yëpp moo xam waxtu wu mu leen mën a fekk weer bi moom juddu na ma leen léegi weer bi su fekkee dafa juddu ci waxtu woo xam ne waxtu wu ñu war a jàpp koor jotagut kon lu mën a xew bis booba dañ koy woor may leen comme ci misaal euh, ci weer bii nii nga xam ne fii ci senegal weer bi bi muy judd di 6 h 23 du matin maneen weer bi suy judd boo ma ndax audio bi ñoo ngi ko defal le 31 mars maneen weer bi suy judd mu ngi judd 6 h 23 du matin 6 h 23 du matin waxtu la woo xam ne du fekk waxtu jàpp koor jot kili yàlla jàngale nag muy wakkulu washrabu xatta yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswadi minal fajri weer wi nga xam ne ci lañ war a tàmbali jàpp koor weer nga xam ne maa waxtu wi nga xam ne ci lañ war a tàmbali jàpp koor su fekkee ne weer bi ba muy juddu waxtu woowu jotagul kon lu mën a xew bis boobu dañ koy woor ma ne nag loolu la yàlla jàngale ndax lu mën a xew yàlla li wax mooy faman shahida minkum ash-shahra ku fi maanaam ku seede ci yéen weer bi muy maanaam ku fekkee ci yéen weer bi weer bi su xasee weer wi su xasee juddu rek weer bi moom tàmbali na kon weer bi suy tàmbali ci waxtu woo xam ne maanaam waxtu jàpp koor jotagul su boobaa lu mën a xew nit ki day woor su fekkee nag léegi weer wi waxtu wi muy juddu waxtu la woo xam ne fekk na waxtu jàpp koor weesu su boobaa nit ñi duñ ko mën a woor te tey noonu laa ko waxee woon ci audio bi ñi nga xam ne dañoo nekk lu mel ni côté Europe nga xam ne GMT plus de lañ nekk nga xam ne 6 heures 23 minutes boobu GMT day fekk ñoom ñu nekk ci 8 heures 23 mais neen su boobaa day fekk waxtu jàpp koor weesu ci yéen kon su boobaa lu mën a xew yéen du ngeen mën a woor ci vendredi bi ci samedi bi ngeen mën a woor. su loolu noonu lay demee waaye ñi nga xam ne ñoom. comme lu melni ni Sénégal fi nga xam ne waxtu 6 h 23 bi fekkul waxtu japp koor jot ak ñi nga xam ne nek côté États-Unis bi nga xam ne waxtu wo ñom waxtu japp koor ma fekk gul woon mu jot ñom lu mën xew dañu wara wor ndax weer bi tambali na kon ñom sédé nañ weer muy fekké nañ weer bi mu doon lo xam ne lu leer la lu mata bayyi xel may leen nak erreur bi nga xam ne lañ la ñi di def moy ci misal ñi nga xamé dañuy wax na ñom suñ ko gisé lañuy wor may leen comme ci misal ma ngi koy wax sax ci audio bobu may leen Sénégal ñi nga xam ñoy bayyi xel wër wi ci ñom nee lu mëna xew wër bi mom dina judd 6 h 23 waye wër bi duñ ko mëna gis sax aljuma manam ci guddi gi duñ ko mëna gis lu dul samedi ci guddi gi nga xamné kon ñom dimanche lañuy ñuy wor may leen su ngeen tambalé wor dimanche six heures vingt trois du matin ci dimanche ba mooy ñaari fan ci weeru koor gi mooy ñaari day fekk weer wi am ñaari fan yu mat sëkk ça veut dire que dimanche six heures vingt trois du matin fekk na boobu weer wi am ñaari fan yu mat sëkk nga xam ne yéen lu mën a xew fukki maam ñaar fukki fan ak juróom-ñett su ngeen ko wooree lu mën a xew seen vingt-neuvième jour ci beneen weer lay nekk waaye du nekk ci weer wi lu mën a xew seen benn neuvième jour ci beneen weer lay nekk waaye du nekk ci weer wi kon mu nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la nekk loo xam ne lu mat a xam la mu nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la nekk loo xam ne lu mat a xam la kon mbir yi dëgg-dëgg loolu moom mooy li ci am solo kon mbir yi dëgg-dëgg loolu mooy li ci am solo lii nag mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon a bàyyiloo xel nit ñi bàyyiloo leen xel ñu xam ne maanaam mbir mi ci boppam li yàlla jàngale ci mbir yi dafa nekk lu leer nàññi nàññi nàññi nàññi loo xam ne nit ñi kenn ku ci ne war na koo bàyyi xel nit ki nit nit ñi kenn ku ci ne war na cee xelaat nit ñi kenn ku ci ne war na koo bàyyi xel nit ñi kenn ku ci ne war na cee xelaat ndax li yàlla jàngale bokkut ak dara li nga xam ne moom la ñu jàngal ci téere yi li yàlla jàngale bokkut ak dara li nga xam ne moom la ñu jàngale ci téere yi bokkut ak dara li nga xam ne moom la nit ñi di pratiquer te nit ki sooy def lu wuuteeg li la borom bi digal donte da ngay wax ne da nga ciy jaamu yàlla it doo ci jëlee dara ndax la ngay jëf dafa validul ndax nekkul lu yàlla validé dafa validul ndax nekkul lu yàlla validé kon lolu dafa mata xam lolu dafa mata bàyyi xel kon lolu moy li am solo lolu dafa mata xam te lolu dafa mata bàyyi xel kon li am solo moy li nga xamne mom lañ wax ak référence yi nga xamne mom lañuy joxe na kenn ku ci ne dem vérifier ko boppam kem niñ ko daan waxe ngir baña sank ay jëfëm ndax amna ci lo xamne suñ ko dee def defuñ lu sank suñuy jëf amna lo loo xam suñ ko def defuñ di sank suñuy jëf te nit nak ku doon borom xel warna moytandiku di sank ay jëfam kon loolu moy li nga xamne mom moy li am solo wa koy euh, li nga xamne nak mom lañ ciy tek muy ñaarelu point bi ci vidéo bi moy li nga xamne mom la doon wax ci njëlbeen gi mu ngi jëm ci manam euh, ñenn ñi nga xamne dañuy gestu ci alquran mo xam ci aduna bi ndax yalla dogal na depuis 2019 euh, am na nit ñoo xam ne dinañ ci waxtaan ak man euh, maam di ci échanger ak man mooy wax bi nga xam ne ñenn ñiy gëstu ci alxuraan dañuy wax ne est-ce que weer bii ñuy woor est-ce que weer boobu mooy weer bu ñu war a woor loolu nag question la boo xam ne xam naa ne du. maanaam du pour wala boog nekkul loo xam ne intéressé gum na ñenn ñi nga xam ne xëy na dañuy doog a yeewu ci alquran wala boog yeewooguñ ci sax waaye nekk ci di déglu di bàyyi xel vidéo yi ndax li ko waral mooy ci àdduna bi dafa bëri ci dëkk yu bari léegi soo demee fii ci Maghreb bi soo demee ci moo xam ci Moyen-Orient wala ci Europe wala Amérique bari na ñoo xam ne léegi dañuy wax wax yooyu ne weer bii ñuy woor nekkul weer bi nga xam ne moom la ñu war a woor léegi nag dinaa ci wax ak ñoom ay wax di am lu ma leen di bàyyiloo xel ndax yàlla dafa dogal ñun en 2018 biñ defee vidéo ci wàllu julli dafa am ku bindoon benn commentaire di ñu invité pour ñu def ay gëstu xool ndax weer wi nga xam ne la woor est-ce que dëgg-dëgg mooy weer bi ñu war a woor mu am benn lien bu mu ñu dugalal yàlla dogal kooku ba ay jàpp sax turam ki nga xam ne moom moo bindoon loolu yàlla dogal maanaam ba ci 2019 bi man sama bopp euh, ma loolu mu waxoon sama xel teew ci ma dellu ci téere bi di xool yàlla li nga xam ne moom la jàngale maanaam ci wàllu calendrier xool yàlla li mu jàngale ci wàllu koor bi ma ko xoolee ba noppi mu am loo xam ne bàyyi naa ko xel ma ne léegi xaaral ma dem liiri maanaam waa ji lien bi ma joxoon ci laa liir lien boobu bi ma paree tamit ma defaat ci yeneen recherche liir si ay textes yu bëree bari moo xam ci arab bi moo xam ci français bi ak même ba ci anglais bi tamit léegi bi ma ko defee ma ma xool ñoom ñëpp li nga xam ne moom la ñuy wax yàlla dogal yàggul dara maam ay nit ñu ma ciy waxtaanal di wax ne ñooñu lu ci bay dañuy sukkandiku ci baatu ramadaan ne li ñuy firi mooy lu mel ni tàngoor gu tar wala nga xam ne dañuy sukkandiku ci étymologie baat bi ci boppam muy ramadaan léegi nag ñu ne est-ce que kon weer bii nii dëgg-dëgg nit ñi di woor nga xam ne weer la boo xam ne day wër eh, day def rotation ci biir at mi nga xam ne mën na tombeek nga xam ne mën na tombeek saison bu ne est-ce que dëgg-dëgg weer boobu lañ war a woor yàlla dogal na deux mille dix neuf euh, mille dix neuf deux mille vingt waxtaan naa ci ak ay nit euh, deux mille vingt euh, deux mille vingt et un tamit noonu deux mille vingt deux mille vingt deux bi it noonu. te li ma leen di wax benn wax la boo xam ne bu leer la boo xam ne ku ne mën na ko bàyyi xel ku ne mën na ko vérifier boppam ndax yàlla dogal na dama leen di wax ne leen ñi nga xam ne gis naa ñépp ñuy wax ci weeru koor wi di wax ne ndax weer bii ñuy woor mooy weer wi walla déet ma ne leen du ngeen ci dem ci kenn fekk mu indi leen ay preuve coranique yu claire luy saxal ñoom la ñuy wax ma leen amu ci kenn nag koo xam ne liir naa ko ci mu ci indi ay preuve coranique yu leer yoo xam ne day saxal ñoom lañuy wax ma leen sax luy saxal li fi ne loolu moo nekk ci alxuraan waye li saxal ñom lañuy wax nekul ci alquran lool nak li ñuy leeral la ndax li rek mom kesse mënon na nek sujet vidéo ndax dama leen wax na leen su ngeen démé ci alquran ñom li ñuy faral di wax dañuy wax ne normalement calendrier biñu wara utiliser calendrier lunisolaire la wara nek moy calendrier bo xamné dañuy utiliser jant bi ak wèr wi. may leen loolu amul delluwaay ci alxuraan ndax su fekkee ne def ngeen ay recherche ci wàllu calendrier boo xam ne wax dëgg yàlla ñun ku dem ci vidéo yi ñu defoon 2017 sax ci vidéo bu tuddu lettre au président ci biir am na benn allusion buñ ciy def ci comme li ñuy wax calendrier grégorien di wax ne pape bi ñuy wax Grégoire treize maanaam ci bi mu nekkee pape maanaam ci lañ soppi ñoom ci lañ ajusté seen calendrier c'était en 1582 maanaam pour am calendrier bi nga xam ne tey jii moom lañu am waaye waaye koo xam te fekk nañ ñun affaire calendrier daan nañ ci gestu bu yàgg yàgg maye leen calendrier ku dem di ci gëstu calendrier yi nga xam ne ay li calendrier lunisolaire la pour calendrier yooyu di mën a respecter saison yi dañ daan dolli benn mois intercalaire benn mois intercalaire moo xam chaque année ben mois de 11 jours wala mu nek chaque 19 ans wala lu meuna don comme que suñu démé ci lu melni calendrier babylonien wala lu melni calendrier métonique ku dem def say gëstu bopp am na loo xam yow ya koy gissal sa bop ñu ne nak ñom fiñuy sukkandiku moy huwa alladi jaala ash shamsa moy ku dem ci moy aya moy surat 10 di sourate yunus aya 5 huwa alladi jaala shamsa diyaan wal xamara nuuran وخدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفسر الآيات لقوم يعلمون يعني لم وخني مم ويكينا خبنا مم مو دفل ما نام كم كي نمتدتي ما كي نمتدوا جنتبي نمتو ليرا يبوبم لنو إن دفل ويروي نور أك ba yamale yemale waccu way ngir ñu mëna xam limu at yi ak calcul mune yalla yàlla sàkkul lii ci deug mune mom dana faram faccé mune day faram faccé ay ayam ñeel nit ñi nga xamé ne dañoo xam may leen waaw aaya bobu su ngeen ci démé yalla su ash ashams wax al-khamar su waxé jant bi wax wèr bi li mu leen bëgg a bàyyiloo xel mooy alternance guddi ak bëccëg te loolu li koy firndeel sax mu ngi ci aaya ba ca topp inna fi ixtilaafi layli wan nahaari aaya ba ca topp rek loolu la indi maam ci wuuteeg guddi gi ak bëccëg gi loolu lay jàngale alternance boobu lay jàngale mais amul kenn ku mën a dem ci alxuraan ñëw ne maanaam maanaam calendrier li ñuy solaire lañu war a am may leen alxuraan yàlla jàngalewul li ñuy wax calendrier di indi ay turu mois nangam nangam xeet boobu ndax bokk na ci argument yi nga xam ne moom la nit ñi di joxe mooy par exemple soo demee ci en arab yi seen mois yi tur yi ñuy am ay tur la yoo xam ne day dëppook ay saison comme lu mel ni ay rabiul awwal nga xam ne moom mooy printemps premier ak xeet yu mel noonu nga xam ne day nekk weer yoo xam ne seeni tur day mel ni day tegtale benn jamono may leen bàyyi leen xel ne weer yooyu yonent bi weer yooyu judduwul juddoowul ci moom ndax weer yooyu loolu sax nekkul ci alxuraan turu weer yooyu ay tur la yoo xam ne dañ ko daan jëfandikoo li jiitu islaam di leen ñëwal ndax ñoom dëkkoon nañoo yahuud yi te yahuud yi dañoo am calendrier lunisolaire mooy benn calendrier de treize mois ngir bëgg seen calendrier dëppook saison yi may leen su dee ñoom calendrier boobu lañ daan jëfandikoo calendrier boobu muy calendrier wu treize mois lu koy dàq dafa ñëw ci alxuraan may leen xam ngeen lu koy dàq li koy dàq mooy soo leen demee ci suuratu taw tawba muy suurat neuf aaya trente six li yàlla wax ne inna hiddata shuhuri hindallahi ithna ashara shahran fi kitaabillah yàlla di wax ne li weeri ci téereb yàlla wala ci dogalub yàlla li mu weeri ci dogalub yàlla maa wax inna hiddata shuhuri hindallahi ithna ashara shahran fi kitaabillah maa li mu weeri fa yàlla fukki weer la ak ñaar ci dogalub yàlla li weeri fa yàlla fukki weer la ab ñaar ci dogalub yàlla yàlla li mu dogal weer yi doon ko fa moom mooy fukki weer ak ñaar ma leen déjà wax boobu rek dàq na année boo xam ne treize mois lay nekk dàq na année boo xam ne treize mois lay nekk kon kenn mënatul a ñëw ginnaaw gi koo xam ne gëm na yàlla di saxal li nga xam ne moom la ñuy wax Mais dis ça, les gars, comme le moment la ñuy comme calendrier lunisolaire boo xam ne calendrier de 13 mois lay nekk ngir mu mën de dëppoog saison yi Tu may leen su ngeen de ci alxuraan yépp du ngeen fa gis lenn luy saxal loolu fan yi sax am na ku ma ci doon waxal mu ne comme calendrier bii ñu am calendrier boo xam ne calendrier lunaire la boo xam ne nekkul lu nga xam ne nekkul lu figé presque loolu ñu ñu ci jullit yi rek ñoo ko am te soo xoolee maanaam comme calendrier hégirien loolu ginnaaw yonent bi lañ ko créer nangam wax yi ma ne ko waa loolu ñun wax nañ ko ci vidéo yi calendrier hégirien ça n'a rien d'islamique loolu dara boole bu islaam parce que yonent bi bàyyi koo na fi li yi di nettali ñu ne ba ci jamonoy Omar ci lañ doog

te loolu nag di ci roy catholique yi dëgg-dëgg fa la jógee roy catholique yi ci lan comme bi ñuy wax chrétien waaw c'est ça catholique yi di roy catholique yi roy catholique yi waa roy chrétien yi ci calendrier bi nga xam ne dañ koo créer maanaam tënk ko ci li ñuy wax nativité nga xam ne nativité moom lañ jàppee l'an un may leen tamit ñii tamit bi ñuy créer seen calendrier muy calendrier hijriya seeni weer na mu tëddee woon ca ñoom soppi wuñ ko waaye dañ caa tànn benn ne léegi weer bii mooy nekk suñu premier mois te calendrier bi ñoo ngi koy commencé daté ci légir mais hijriya waaye leen calendrier boobu loolu moo ko jur waaye ñoom soppi wuñ seeni mois na nga xam ne noonu la daan tourné waaye dañoo tànn ci weer yooyu benn ne désormais bii mooy nekk suñu weer bu njëkk mooy comme lu ñuy wax muharram may leen noonu la demee. que li ñuy créé comme ni ñi amee seen calendrier bi jox ko comme comme calendrier bi nga xam ne dañ koo natt ci maanaam nativité ñoom it noonu lañ créé seen calendrier natt ko ci égir te loolu ñoo ngi ko def bien après yonent bi parce que diine islam en réalité loolu du ko fee indiwul te ma ne leen leneen li ci topp. su ngeen demee ci alxuraan maanaam natt maa li ñuy wax ay at ci weer li ñuy wax maanaam nouvelle lune loolu tamit ba tey day dellu siwaat ci li ñu doon wax suñ ne nouvelle lune yàlla waxul ci alxuraan su comme maanaam suñ ko gisee suñ ko gisul waxul moyen yàlla dafa wax ne par exemple yasalunaka hanil ahilla mu ne xul mawaaxiitu linnaasi wal xaj li nga wax na ko ñu ngi lay laaj maanaam ci weer yi mu ne mu ne loolu kat nattukaayu waxtu la ngir nit ñi ak aj may leen kon ay weer yoo xam ne dañ ci natt suñu maanaam suñu temps loolu yàlla jàngee na ko ci alxuraan te li ngeen wax calendrier lunisolaire لول امول بن دلواي يوخي سي الشمس والخمر بحسبان والشمس والخمر حسبانا ما لين يوي ييب سو ген ديمي سي القران امول كين كو تي مانا سوكاندي كو ني ليغي لي كالندري لوني سولير لا تا مانا لين لي تخ نك وير يي دي تورني لول دا فا ام سي القران دا سو فيكو دا نيو مون كالندري بو خم دا فا فيجي نيك ان كالندري د مو نيك 13 mois يالا نيو واخ ني وير يي فا موم فكي وير لا kon ci saa si loolu tëbal na treizième mois bi <coughs> may leen kon ci saa si loolu tëbal na treizième mois bi te treizième mois bi su tëbee lu mën a xew rotation boobu day commencé loolu moo waral léegi nga gis mois boo xam ne ci misaal mi rabiihul awwal muy printemps premier mu mën a nekk été mën a nekk automne mën a nekk hiver ndax ñoom dañuy wax ne normalement li mu war a nekk mooy septembre ñu bari loolu la ñuy wax septembre la war a nekk mais nag loolu amu leen dara lu koy saxal parce que calendrier bu figé boobu ku ko ci bëgg a saxal yaa koy créer te soo créer sa calendrier da ngay créer calendrier de treize mois te soo créer calendrier de treize mois wuute nga ak li yàlla saxal yàlla nee na weeri fa moom fukki weer la ak ñaar kon mu doon loo xam ne lu mat a xam la. ndax damay wax ne ñi ma ciy waxtaanal ñu bari li ma leen wax mooy man awma attachement ci jëf yi ci waxu yàlla laa am attachement ma ne leen su fekkoon ne par exemple damay am attachement ci jëf yi même su ma gisee li yàlla wax du ma ko du ma topp loolu la ma daan jëf ca laay topp comme li nga xam ne ñu ëpp ci nit ñi noonu lañ koy doxale waaye ñun koy wax dëgg yàlla suñu cheminement ñi nga xamne top ñu ngi top vidéo yépp nga xamne gis nañ ko batay yex fi tay lolu kay ku ko xam war nga xamne ñi ñom amuñ ma ñi amuñ attachement ci ay jëf ñi ngi am attachement ci lan la yalla wax ak lan la waxul ndax lepp luñu leer na li la yalla wax ci lolu lañuy jëm lo xamne nak leer nañu ne amul kenn ku ko mëna saxal ci téereb yalla lolu mom wax deug yalla aduna du yag mukk bañ top lolu ndax topuñ kenn ku dut yalla toppuñ lu ñu bëgg toppuñ lu ñu neex loolu di leen ba tey ci biir point boobu ñiy wax yooyu am na ci seen biir ñoo xam ne it ndax damay wax ne xëy na ay libertin lañ rek loolu xëy na du fi Sénégal peut-être du fi xëy na du fi ñàkk parce que àdduna moom léegi dafa ubbeeku am na ci ñoo xam ne ay libertin lañ yegg nañ ci wax na sax nit ki maanaam woor maanaam tekki wut ne waroo lekk waroo naan nga xam ne léegi ngir bëgg soppi. amna ci ñoo xamne nak nag du ñëpp nak mais amna ci ñoo xamne dañuy gëssu xeyna xamuñ mais so leen waxe dinañ dellu si ndax bari na ñoo xamne manam bima ci échanger ak ñoom ndax daaw amna na ñu ma ci doon waxtaan ak ñoo xamne bitim rew la ñek ginnaaw gi dem nañ ba reconnaître loolu xamne li kat ndekete manam ñoom ñoom ñoo defoon njumte ci yenn détails yi wala bok ñu ñaka bàyyi xel li nga xamne ma wala bok ñu doon lire nit koku lim doon wax ñukoy jël nonu te demuñ xol ay lan lañ waxal seen bop même ñi nga xam ne dañuy wax ne koor tekkiwul na doo lekk doo naan maa leen loolu loolu leen loolu daanaka loolu ñàkk bàyyi xel alquran la ndax su ngeen demee ci suratu baqara aaya 187 yàlla bi muy wax la ne uxilla lakum laylata siyaami arrafasu ila nisaikum hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunna alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fa taaba alaykum wa afa ankum fa laa nabashiruhunna wa abtagu maa kataba allahu lakum wa kulu washrabu xatta yatabayana lakum alxaytu al abyadu min alxayti al aswadi min alfajri may leen li tàmbalee ci bopp aaya bi ba ci foofa li nga xam ne moo dagan ci yéen ci guddi koor gi leneen yàlla di wax may leen su ngeen waxee ne kon maanaam koor yàlla maanaam koor tekkiwul ne soo wooree maanaam doo lekk doo naan may leen kon xanaa kon su ngeen su xanaa kon su ngeen wooree tamit mën ngeen a jaxasoog seeni soxna mu mu ngi noonu may leen alxuraan da ngeen di bàyyi xel li yàlla jàngaleel boppam mbir yi nekkul wuute pour wuute bëgg a wuute pour bëgg a wuute mbir yi lan la doon mooy lan la yàlla wax point soo xamee ne lii la wax doxal ci lim wax bu ci calculer sa bopp bu ci sóor sa bopp jamono bu ne dinañ koy fàttali njàngaleem yàlla nit waru cee sóor boppam waru cee calculer boppam li ko war a ñor lenn képp la mooy lan la yàlla waxal boppam te nit ki it loo amul aaya bu ko saxal mu leer ci téere bi bu ko topp loolu moom lu mën a xew jarul topp rawatina li ñuy wax ay calendrier li ñu solee rek ak yenn wax yi am na ci yoo xam ne moom comme ni ñuy wax ay woor tekkiwul ne nit ki doo lekk doo naan loolu moom ñu koy wax sax moom xanaa wax lu leen neex la mais aaya 187 boobu képp doy na ci sëkk su fekkee nit ki liir na aaya bi fa mu tàmbalee ba fi mu yem waaw loolu mu doon lu leer même maa ngi wax nit ñi sax ñi nga xam ne dañuy ndogu par exemple su jant bi soowee damay ni wax loolu may leen aaya boobu sax fi mu tàmbalee yàggul dara maa ngi koy wax benn nit fi mu tàmbalee rek maanaam ab joxoñ la yàlla sunu uxilla lakum laylata siyaami kon lekk gaag naan gaag jaxasoo gaag yépp ci guddi koor gi la daganti ñun kon si guddi gi jotul nu ngeen ko mën a defee yéen ñi nga xam ne kon da ngeen di ndogu maanaam su jant bi sowee te guddi gi jotagul ndax yàlla li wax dafa leer bi fala uqsimu bi shafaqi wal layli wa ma wasaqa yàlla ci boppam moo tàqale maanaam crépuscule di marax googu ak guddi indi bii turam indi bee moom la muy daganal ci guddi la ko daganal uhilla lakum laylata siyaami mu doon lu leer li nga xam ne tamit moom lañ doon wax ci euh, ci point bu njëkk bi maam ñu bari lu tax sax comme li ma doon wax su fekkee ne weer bi juddu na comme si misaal su weer bi juddoo 6 heures 23 te waxtu ñu war a jàpp koor jotagul ñu bari lu tax ñi nga xam ne noonu la ñu daan jàngalee diine lu tax ñoom su boobaa seen xel lu ci dal parce que dañuy jàpp ne faaw ñu naafila balaa ñuy mën a woor. yax naafila faaw ñu la balaa ñuy mën a woor ma ne naafila googu bokkul ci koor naafila googu dafa bokkul sax ci diine mooy li ñuy wax taraaweex. naafila googu bokkul ci diine loolu ku dem ci vidéo bi ñu waxoon ci koor en 2018 mu ngi fa kon li am solo mooy nañuy dellu ci téere bi di ko bàyyi xel te jëmmi yàlla ji tax bañ cee sóor suñ bopp bañ see calculer suñ bopp bañ see sóor nit ñi sóor ci yàlla moom kenn képp ndax suñ ci sóoree suñ bopp day mel ni suñuy bëgg-bëgg bopp la ñuy dugal ci mbir yi suñ sóoree nit ñi day mel ni nit ñooñu dañ leen bokkaale ak yàlla li yàlla bëgg ci ñun xooluñ ko waaye nit ñi lañ bëgg ci ñun la ñuy xool te dëgg-dëgg ku dem ci vidéo njëkk danaa ci wax ne nit ki ki nga xam ne moom ngay topp ay bëgg-bëggam kooku mooy yow sa borom su fekkee ne yàlla ngay topp bëgg-bëggam mooy sa borom su dee nit ñi ngay topp seen bëgg-bëgg ñoom ñooy sa borom ndax su boobaa ñoom ñoo lay conditionné te nit ñi moom lu comme niñ koy waxee jamono bu ne dañuy yéene yàlla moom day yéene ndax même ba ci koor gi damay wax nit ne leen li yàlla digle ñun ñi di ko def waxtu wañuy jàpp koor ak waxtu wa ndogu su ngeen xamoon di ngeen xam ne li ñuy woor ñun moo gën a gàtt yéen li ngeen di woor ndax yéen waxtu wi ngeen di tàmbali koor ci guddi gi lay nekk su timis jotee ngeen ndogu ñun ñu bàyyi ba guddi gi te diggante timis bi ak guddi gi daanaka matul 30 minutes kon lu mat a bàyyi xel te mat a xam mooy loolu ñu xam ne rek. nit ki su fekkee dafa wax ne dafa bëgg diine wala mu wax ne diine da koo ñor dafa war ci moom mu dem gëstu jil boppam ndax wax naa ne weeru koor wi li ci yàlla wax rek misaal la ak firnde la ci li nga xam ne moom lañ daan wax ci ne diine lu personnel la diine lu individuel la mooy li yàlla wax ne fa man shahida minkum shahra fal yasumhu ku seede ci yéen weer wi na ko woor nga xam ne yow nit ki personnellement soo seedee ci yow soo seedee weer wi yow lañ wax nang ko woor waxuñ ne léegi soo su ma seedee weer wi na nit ñi woor loolu yàlla waxul loolu ku seedee ci yéen weer wi na ko woor te yàlla li mu wax dafa matale loolu maa ngi koy fàttali keroog yàlla su ne ku seede ci yéen weer wi na ko woor mooy ku ko fekkee na woor bokkut ak ku gis ci yenn weer wi na ko woor su yàlla waxoon ku gis ci yéen weer wi comme euh, comme li ñuy wax astre bi na ko woor konoon ku ko gisul du woor kon ku ko gisul du woor dama leen yàlla li muy jàngee dafa mat su fekkee dafa wax ne ku sekk maanaam ku seede ci yéen weer yi na ko woor muy ku fekkee ci yéen weer yi na ko woor aajawul ngay gis weer aajawul nga koy ñàkk a gis yow jëmmi mois bi na la fi fekk rek su la fi mois bi fekkee woor ko dafa war te fi jamono toll moyens yi weesu na loolu weer bi à mën nañ laa wax ne la weer bi bis sàngam lay tàmbali ci waxtu sàngam mu nekk lu précis bis sàngam waxtu sàngam lay tàmbali ndax bis sàngam waxtu sàngam la weer wi di juddu kon loolu doon lu leer kon nit ñi suñ ci bëggee nekk nag sax ci ay werante maanaam sax ci ñi naan ñun gis nañ ñi naan gisuñ ñi gisaguñ ñi naan nàngam ñoom la soob waaye nañ xam ne doxuñ ci ndigalul yàlla yàlla moom li mu wax ki nekk fa gën a sori ci àdduna ak fu mu mën a nekk weer bi moom su tàmbalee tàmbali na ci ñépp la tàmbali amul ci kum tàmbali ak ci kum ñàkk tàmbali ndax weer bi ak juddoom benn juddu la te àdduna bi yépp ñoo ci bokk yam te weer bi su judd ma weer bi su juddoo weer bi moom commencé na te weer bi kum fi fekk te nga nekk ku gëm su fekkee ne nekkoo ci tukki wala mu fekk la ci feebar yàlla lim la wax mooy na nga ko woor kon dëgg-dëgg mbir yi foofu rek la nekk te mu nekk nag lu mat a bàyyi xel macha allah ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal aax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal macha allah jërë ngeen jëf wasalaamualeykum